Euh, justement yaakaar bi nga xamante ni sénégalais yi dañu ko am ci ñoom ba tax ñu fal leen euh, balaa ñu leen di fal ils ont fait euh, beaucoup beaucoup de est-ce que yaakaar nga ni dina am temps bu nga xamante ni bu ko defee lépp lu ñu promettre woon sénégalais yi dinañ ko def. bah oui promesse nag promesse la xam nga promesse. dañ naan l'homme propose. Dieu dispose. di nga ñëw ne ni lépp laa bëgg. ba jël say schéma yépp teg. yàlla na la nag du demee noonu. Mhm. tout simplement parce que. Mhm. ba ngay nekk di def promesse tu étais de l'autre côté tu n'étais pas au pouvoir nga nekk au pouvoir y a appelle les réalités du pouvoir. lii nga promettoon je prends l'exemple ci wàññi dund bi loo ko promettre promettre na ni jour sangam nañ wàññi dund bi. pourquoi c'est compliqué c'est tout simplement parce que am na yoo xam ni c'est pas toi moomoo ko. Mhm. mënoo wàññi loo moomul. nga jënd ceeb bitim réew moomoo ko. l'eau subventionnée, subventionnée, FMI, Banque mondiale, les partenaires financiers vont te dire ça suffit, la subvention, stopper. Ouais. On a demandé à arrêter la subvention et même à baisser la subvention sur les prix de, de l'énergie, sur l'énergie. mais bu ñu ko wàññi woon tey bu ñu toppoon ay banque mondiale ay FMI ak yooyu. Mhm. mais Sénégal courant bi dina cher. Ah, ndox bi dina cher réew mi dina cher mais gouvernement bi fi nekkoon am na lu mu jot a négocier. Mhm. bii fi nekk. ala kulli de day négocier pour bu ñu wàññiwul tamit ñu bañ koo yokk noonu le gouvernement di doxee. Mhm. mais je pense que au fur et à mesure dinañ am les leviers nécessaires mhm. pour lépp loo xam ne wax nañu ko ci diggee ñu mën ko def am na boo xam ne déjà tàmbali nañ ko mooy faw ñu leeral ñu ngi nekk di leeral moi je pense que euh, c'est déjà une bonne chose euh, neen leen bàyyi ñu liggéey ñu liggéey nañ ba ci kanam ñu xool ñu ngi ci benn période de grâce mhm. nañ leen bàyyi période boobu au bout de trois quatre mois cinq mois on verra. on verra bu dee lii xeeñ neex na. Hmm. Euh, yéen ñuy togg xam ngeen ci dara cin bu naree neex bu baxee xeeñ. <laughs> bu dee lii xeeñ neex na bon on, on dira que c'est bon sinon. D'accord. on va critiquer. alors euh, ñu ñëwaat ci playlist bi jox ma sa troisième chanson préférée. Euh, Aubrey Daman ak way boo xamee ni. Hmm. ki ki la chanté mooy Gàddaay. Gàddaay waaw c'est c'est une chanson que j'écoute que je réécoute que je réécoute. Euh, Omre Daman alors on va aller regarder ça gàddaay bu nga xamante ni Omre Daman moo ko daal di woy ñu seetaan ko léegi léeg